nationaux. nga ni lu ñu wax. <laughs> ci rajo conclusion la nekk. 4203 yu jógee yu nekk Sénégal xool 908 observateurs internationaux ñooñu ñëpp nii yëpp jaar na yoon. élection yi jaar na yoon ñoom ñu waroon a indi seen i PV xam nga daal mu ngi laaj preuve léegi. Mm-hmm. ne ki la wax ne nangam moom dama koy laaj preuve mais bu laaj ko bu ne man.

mais Idrissa Seck defu ko il a raison. moi aussi je dis qu'il a raison. bi. waaw d'accord maître El Hadj oh, Diouf mais ku nekk lii li nga wax quand même. déedéet ku da nga. fii elle collective parce que ñoom ñaa ngi def conférence de presse oote. Ah, ci benn siège foofu bokk mais ma expliqué la ñaari nit ñaari candidat daje ci foo xam ne du seen sax. terrain neutre la muy bokk gis-gis ñu daje fa. pour pour pour lan pour xalab élection yi. wane ni jaarul yoon wane ni groupe tel li ñu def lu yoon ndax booba seen liggéey ngeen di def léegi ñoom ñaar ñooy waxandoo même chose eh, kii day wax ni ndax dañuy bindandoo texte bi ba pare am ko wax pour keneen ki ndax bi wax kenn we kii weddiwu ko. kii di rien constant. amu ci ñoom ñaar ñoo ànd waxandoo li ñuy wax kon bu ñu teg ni ñu ay dof. man dama bëgg rek Ablaye ñu nangu lenn am na. Hmm, nga daane lay foofu. fu lay pare hmm. lu ñu ragaloon ku ragal presse bi mooy ci ragal dëgg sàcc bëggul coow bëggul aussi lumière presse bi mu ngi ni lumière ni bureau de vote numéro tel quartier dangam Kassaville Kaolack. ñu ne du fi ja du fi am ndax foofu Macky a gagné noonu la demee exactement kon nag kee ragaloon ba tax mu bëgg ñu taal dëkk bi xam ne bu ñu compter <coughs> du bokk moo bëggoon ñu taal ndax ëllëg foo leen gouvernement Macky Sall day daanu Macky Sall jógee fi dem nañ ma ne Macky Sall day voyagé. ah mooy fake news yi. dana ma ne day daw day génn dëkk bi. mais pré yéen opposition bi Sénégal xool leen ñi. <laughs> alors ñu ko joxoon yi du taal réew mi de. dañuy dem publicité bu garaaw a garaaw la juste avant ñuy dem Charles tamit ñu ngi lay maasaw xam ma voilà da nga feebar me tu as tenu à venir respecter rendez bi li Papis doon wax mu koy firndeel ne jàkkaarloo finalement ni ngay wax euh, ak euh, Bouba sacerdoce la ko nit ñi def. Euh, hmm. très rapidement rek balaa ñuy dem euh, publicité ci étape bi ñu toll woon ak presse bi un peu nii mu amee gàllankoor ci liggéey bi ndax euh, li xew ak Pape Djibril ni mu ko waxee résultat yi yéex a siiw. ndax daan nañ ko publier donte proclamation bi am na kuréel goo xam ne moom lañ ko cëralee woon. waaw xam nga DER la presse ba 2012 était le principal acteur ak relais de l'information. Hmm. balaa ñuy jublu si si kii bi maanaam présidentielle élection bi dama leen ne que réseaux sociaux yi ñooy la nouvelle donne réseaux sociaux yi c'est neuf millions de connexions sur internet c'est pas forcément neuf millions de sénégalais parce que sénégalais boo gis mun na am ñaar wala ñetti téléphone mm-hmm. mais c'est considérable boo ko xoolee loolu analyse boobu kenn defu ko qu'est-ce qui s'est vingt le 24 4 millions de sénégalais selon chiffre yi ñu am ñoo dem voté du dëgg. Mm-hmm. rajo yi à partir de 18 heures lañ commencé def lu mus a def lu mus a def depuis 2000. 2000 <coughs> téléphone la woon bi yoon nag et téléphone plus waxoon nañ ko fii les gens n'étaient pas forcément préparés à ça ba pare toute la journée ñi ni dañ voté. commencé ñoom informer contrairement à la presse presse da doon sentiment ñi ni ku si nekk yaa ngi orienté sa information fu la neex c'était pas la presse la presse n'est pas engagée dans cette affaire là faut pas confondre le journaliste qui fait son travail ak koo xamante ne c'est un player yor téléphone am ki am lu ko neex dugal Sénégal nag ñun xëy na doon lañ mel luñ si dugal ëppal dafay bokk dañ ko mën trop ëppal voté génne sa bulletin man kii laa voté kii lii on a vu tout et n'importe quoi mu won lee lu bëri si sénégalais lu bëri bari bëri bëri yàlla moo sotti saafara Sénégal keroog dañ ko wax man dem naa fu ne war naa fépp j'ai jamais vu autant de femmes voter man bu gisee femme di voter laa xam dëkk bi lu muy demee jigéen fu ñu voter rek en général c'est le pouvoir en général pour la première fois personne n'analyse pour la première fois ñu am benn première dame boo xamante ne kenn xamul sax si apportu élection bi est-ce que amul impact bu am maanaa kenn calculé wu ko et pourtant dans les dernières semaines pas dans danse yu mu doon def sénégalais yu bëri xamee nañ si parce que la première fois première dame Sénégal bu am dans notre histoire tubaab la deuxième dame sénégalaise la métisse sobre madame Elisabeth troisième dame tubaab la quatrième dame ñu am benn Sénégal loolu yëpp joué personne n'analyse le soir ku xam suñu j'ai eu très mal keroog keroog dama dama arrêté certaines affaires bi parce que j'avais très très très mal man ku ma xam suñu diggante ak Youssou suñu diggante si biir kër man lu ma cest à toog fi di foox man ko boo foog ne que man Macky laa voté tu te trompes faruma ko. anduma ak moom bokkuñu gis-gis. waaw mais Charles non dama wax le vote est secret. waaw yow toi tomber je peux le divulguer y a pas de problème. ça veut dire ça veut dire ce qui s'est passé on a pris le pays en otage. mais nag pourquoi suñu façon doxin la suñu doxin suñu gis-gis je suis désolé il y a quinze mille bureaux de vote au Sénégal quinze mille bureaux de vote. nga bëgg a nekk président du Sénégal munoo am quinze mille représentants j'ai un problème oui j'ai un problème moi me coûte quoi de donner cent mille francs à quinze mille personnes individuellement va me faire un truc politique non mais attendez j'entends n'importe quoi ni ñi bu ñuy toog wax analyse yi ñuy def yëpp c'est à dormir debout les gens ne se rendent pas compte qu'en bu ñu fàttee bu ñuy wax carte d'identité yi c'était en 2005 le 6 septembre 2005 une loi qui institue la carte d'identité sénégalaise numérisée on passe de 2 millions 700 corps électoral moom corps électoral à 4 millions 9 70 pour cent en 2007 d'électeurs ont voté 70 pour cent avec un score de 55 86 pour le président Abdoulaye Wade lan ko jox loolu kan moo liggéey loolu 2019 2017 on a la carte d'identité de la CEDEAO retour aux inscriptions on passe de 5 millions 300 000 électeurs en 2012 à 6 millions 600 en 2000 mais mon gars le gars il a travaillé gis ngeen dëkk dëgg bi mooy loolu Abdou Diouf on en avait plus c'est-à-dire sénégalais yi bëggatuñu Abdou Diouf ñëpp la xeeñ ñëpp amul sénégalais boo xamante ne boo ko xoolee Abdou Diouf doy ko yow la fait partir 2012 les sénégalais en ont eu assez de Abdoulaye Wade avec son programme son ambition euh, sénégalais yi ne ko hey on t'aime bien mais jeex na bu doon pareil fii Macky serait parti ce n'est pas le cas <coughs> maintenant il faut que les gens analysent qu'est-ce qui s'est passé

On va cracher sur ça. On va dire à Macky oui, on te fait gagner et puis nous après les Sénégalais ils nous tournent le dos. Mais quand le dof Il y a 600 000 personnes qui ont voté pour euh, pour euh, pour euh, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ce sont des Sénégalais. suñuy mbokk la ñu suñuy rakk suñuy yaay suñuy lépp la ñu. peut-être que bokk nu gis-gis. mun na am tam ñu bokk gis-gis non il s'est passé quelque chose de très regrettable. et il faut mettre ça sur le compte. peut-être de l'émotion ou de la non-maîtrise en tout cas d'une certaine émotion très forte et passée parce que xam nga lan moom gën a metti ñun dañu génn si loolu douleur bu rëy le lendemain ñu dund leneen hmm. et par respect pour ceux qui sont partis je vous demanderai que cette question-là on la dépasse parce qu'on a beaucoup souffert on a souffert la veille d'avoir été traité de corrompu et de, de, de gens qui confisquaient la démocratie sénégalaise keroog dootuma si wax j'étais prêt à rendre ma c'est-à-dire arrêter même ma carrière parce que liggéey ba ñëw ba âge boobu pour ngay dëgg yenn yi comme si c'est aujourd'hui que ça naissait ça fait très très mal la lendemain nous vivre loo xamante ne leneen alors je vous demanderai mm-hmm. on te comprend Charles euh, Youssou bi ak lu ñuy ànd politique yëpp xam na bi am ànduñu si et il ne m'a jamais kii rakkam la c'est son frère yi ngay toog di tàngal may tàngal muy tey bopp bi mais ça on peut pas rester là à en parler. Mm. parce que les Sénégalais qui nous regardent ils nous oui. pour la présidentielle. Oui. c'est exactement ils ont voté pour le président ah, Macky Sall. man waaw d'accord naa si li nga wax dama bëggoon yokk benn virgule. et je pense que loolu dama ko euh, pour wax ni le truc le plus important mooy le le tapis rouge bi ñuy lalal war a lalal suñu euh, homme politique yooyu muy képp. ku nekkoon ci jongante bi muy cinq yeeg ñeneen sax ñi demul ci parrainage bi tapis rouge bi tey la gën a xonq oui pour eux. non non c'est important moo koy wax parce que euh, on n'est pas par par exemple le premier groupe de presse pour rien du tout fii kër yi ñëpp la